jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajafal bu baax a baax tey nag ñu seet si Zarko mu def open press wala boog euh, bëgg a waxtaan ak ñi nga xamante ne nii euh, ñooy ay mbokkam ay fansam ay am di jàmmam ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi Zarko nuyu nañu la. waa ñu ngi leen di fay di euh, kontaan bu baax a baax di rafetlu teewaay bi ñi ñëw ñëpp ñu ngi leen di masawu di leen ne kontaan nañu bu baax a baax ñi ñëwul aussi xam nañ ni jot moo amul li ëpp solo allo. allo li ëpp solo mooy euh, yéene bi ku ci nekk ci ñun xam nañ li mu yéene Zarko mooy ñu dem yàlla defal ñu ndam le 27 incha allah di leen wax ni ñu nag euh, wax dëgg yàlla pare nañu pour euh, pour le 27 incha allah pour libérer askanu Grand askanu zone 7B de Grand te incha allah rabbi bu fekkente ni liggéey rek moo koy maye. di yóbbante suma adversaire rek di ko ne ku ci gën a liggéey man ak yow yàlla na ko sunu borom defal ndam di la wax ni am nga combat te di nga xam ni ki ngay bëreel euh, pare na sur tous les plans et ñi ngi xaar euh, le 27 incha allah ba arbitre soufflé di nga xam ne ñun waa Grand Yoff dañuy ñëw pour jël suñu victoire indi ko féete ko biir Grand Yoff te mbay mbay Killing ak Kala ñoo bokkul sonori mais bokkuñ ni leen di bindee mbay nee naa la ba tàyyi doomu gaynde du jur muus mbay nee naa la ba tàyyi ko miin wanit baakan saa jagi mi jagat saa jagaar arab saa araami arab mbay su ma jàppee su ma jàppee ne say mboq daw lonku la dinaa la dóor dóor ba say mboq daw jël la sama loxo combat bii nag dinaa la xamal leen ne egg na ma foo xamante ni du ma ko wax ma sàmba du ma ko wax ma demba du ma ko wax sax sama yaay du ma ko wax sax samay doom du ma ko wax sax samay xarit egg na ma foo xamante ni sama bakkan bii nii bii moom laa lay tegal ci làmb ji bu fekkente ni mën nga ko jël rek nga xamante ni am tuus may di remercier l'ensemble zone. non balaa ngaa balaa ngaa remercier dañ ciy ñëw ah, ñu gis ne tey sa open press Mbaye Gouy Gui jàpp open press am tey lan moo waral loolu. sa combat. Hmm? ñu gis ni open press. non man wax dëgg yàlla man jóge woon sax pour def dara. Mhm. man dama bëggoon bàyyi ba làmb ji jeex ba yàlla defal ñu ndam ba pare. Mhm. parce que man fi mu nekk nii. du ay wax du ay woote riir du ay woote mbooloo laay laay laay confirmé du loolu moo ma dese ak waa Grand Yoff parce que man xam naa ni zone 7B de Grand Yoff man Zarko aw ma fi noon aw ma fi ennemi ñëpp samay gaañ lañ ñëpp samay frère lañu yaa ngi dégg muy njaago bi muy tukulóor bi muy séeréer bi muy bambara bi ñun doomu Grand Yoff lañu mais Zarko da nga toog diir bu yàgg ñëwoo ci làmb ñi ci bari na coow li bari na sa diggante ak mbay guy gi mais est-ce dina du perte repère ci làmb ci Zarko c'est un gladiateur du mës a perte ci dara boo bu bu doon bu doon tey tey tey tey tey làmb ji bu doon tey tey wala suba suba mbay guy gi ak ay mboqam yëpp incha allah dañuy for yi parce que ñun duñu yóbbu drapeau grand F di yàq kii Zarko bi nga xamante ni moom la am fi mu dal baaxul eh, noonu la fa demee dafa signé ba pare te liirul noonu la fa demee. yaakaar nga ne mën ngaa teg mbay guy gi lu metti non mais yow xanaa da ngeen fàtte man bi may ñëw mbay guy gi indiwu ma de Sénégal dañuy fàtte man contrat Baye Mandione laa ñëw man sama dama dama ñëwoon dama décidé woon ñëw pour Grand Yoff may leen ma rek sama gars yi pour Grand Yoff parce que dañu toog Europe dégg ci biir làmb ji ñuy dégg gox yëpp Pikine di dégg Géejawaay di dégg Caaroy seen ay doom seen ay euh, seen ay mbër di jël li nga xamante ne alal bi na ci làmb ji mu metti ñu ñu xam ne boo doomu Grand Yoff aussi war nañ ci mun a am. kon yow li nga ci déggul turu Grand Yoff moo la metti ma ci déggul turu Grand Yoff déggu ci fenn fenn foo xam ñu ngi koy coow ci Grand Yoff au niveau mondial laay waxee nag waxuma au niveau international comprendre nga foofu laay waxee te foofu noonu fa la ñuy yóbbu turu Grand Yoff allah te bu neexee yàlla li ñuy wax mooy yàlla ñu yàlla yóbbu ci bis bi may ñu tam incha allah ba mu ñu ci bàyyi nag li ñu bëgg a xam mooy sa digganteeg mbay guy gi coow li dafa bàyyi. xas-xas loo bi bëri yéen ñaar règlement de compte dafa am seen diggante. règlement de compte man ak moom du moo du man ak moom man ak moom du Thiès barki Serigne Bamba xam nga maay wax déggoo ma nee naa la kiling ak kalak noo bokk sungari mais bokk nuñ leen bindee école moo nu boole mais bokk nu classe barki Serigne Bamba du laam man ak moom te loolu nekkul loo xamante ni dañ koy wax kacaw kacaw déedéet dañ koy confirmer fa la ñu toll mbay guy gi ragal bu bon la maccokatu tuñ la te ba mu arbitre dina xam loolu nee na bu ko neexee sax du ànd dara mën na andi ngeen ba ba ngeen jàppante yéen ñaar. loolu loolu wax dëgg yàlla moom la concerné ñun li nga xamante ni pare nañ ko. xam nañ suñu yaram te xam nañ ay ay la lañu xam nañ ni man boobu dama per dama part personnel man en âme et conscience je sais que je suis un professionnel. xaaruma mbay guy gii ci dara xaaruma keneen ci lenn di wax ni aussi tamit li ngi wax waa Grand fi yëpp. l'ensemble zone 7B de Grand Yoff njaago yi séeréer yi bambara saraxule yi joolaa yi soose yi mànninke yi baynunke yi rawatina nag sama mbokk haalpulaar yi parce que Grand Yoff Grand Yoff boo seetee ba seet Grand boo seetee ba seet c'est l'Afrique en miniature xeet boo xalaat mi ngi biir Grand Yoff di leen wax ni nag seen doom seen rax moo xewle yéen ñëpp ñu ngi leen wax ngeen ñëw jàpp ci le 27 incha allah yàlla defal ñu ndam nu sedd guy ñu ñëwaat fii nii feete ko fi. mais est-ce bi mën na am xeex. non yow bu bul jaaxle kii par force day xeex par force mu neex ko mu naqari ko day xeex sam waa ji jëluma combat bi pour ñëw ñu bëri ay mbapat de bu fekkente ni mbapat nga entraîné ah bu yeboo na nga jàngi xeex si trois jours dinaa la dóor ba nga dawal sa bopp lu leer laa la wax sam ñëw ñu ko xeexee waa dafa doon aha loolu de lu mel ni mbiri laa bu fekkente ni say mbokk dañ ne la Zarko day ñëw bëreeg yow kese ñu ngi lay nax di nga xeex xeex xeex ba lépp teppeeku ñu soog a bëre lu toog mën ak yow. mais ñu ci bàyyi nag nee nañu Zarko bi ñu gisoon guy gi est-ce que mën nañoo gisaat Zarko bu mel noonu. Euh, li ma bëgg ñu xam rek li ma bëgg ñu xam rek man Grand laa dëkk Grand laa juddoo Grand Yoff laa yaroo Grand Yoff fii mosuma juddu sax ba gis fi ragal. waxuma la dëkk fi de juddoo fi musuma ko gis. amul amul booy bu ñu ngemboon fii bu demee tamit da koy joobal da koy dóor ba mu mu daanu. yaa ngi dégg li ñuy wax rek li ñuy wax rek mooy di wax képp ki nga xamante ni képp ki nga xamante ni yaay bëggee Zarko muy supporteru Zarko yi ñi nga xamante ni dañ may bëggee ak foo mënti nekk si àddina foo mënti nekk si àddina woowuñu kenn kenn kenn ci violence. am naa benn yóbbante Ndeye Mbacke na. bu ma li may wax nii rek parce que lii nii c'est très important parce que c'est message boo xamante ni waa Grand Yoff dama bëgg ñu xam ne ñun ay noble lañu Grand Yoff yéen ñëpp na ngeen xam ni ñun waa Grand Yoff bokkuñu ci banlieue bokkuñu ci banlieue li laay war a suuli nañu comporté woo comme ay gentleman dem si jouru làmb ji sañse lu rafet dem jëli ndam li indi ko fii incha allah feete woo ñëpp ci loolu laay woo ñëpp comprendre nga di wax ni nag am na loo xamante ni mi ngi am ci làmb ji bugguma ñu gis ci Grand te xam naa ni duñ ko ci gis parce que man gisuñ ma ci lépp li nga xamante ni mi ngi doon am ci làmb ji loolu ci làmb la woon rek après jeex na bu jeexee jeex na waxal ma ñu. waaw parce que man euh, loolu seetaan naa ko les supporteurs Luis Ndiago yi loolu waa jàmm gën lañu waa banlieue ñun baal yi nag ay nante lañu comprendre nga di leen wax nag euh, ñi ngi loolu rafetlu wuñu ko stade bi stade bi de grâce ministre bi daf ko def pour les lutteurs comprendre nga sama gars yi ñu daan sa mbër jàppal sa mbër nga yóbbu ko mu dem entraîné ji liggéey préparé waat nga daan nga dem feete ci sa koñ stade bi bu ñu ko yàqee suñu bopp lañ ko yàqal yàqaluñu ko ma Samba yàqaluñu ko ma Demba mi ngi nii tey li dal Luis Ndiago yéene wuñu ko ko parce que xale bu ndaw la nekk ci yoon ñu dagg xaalisam aj ko xaw ma trois ans euh, mm-hmm. un an souci xam nga loolu noonu euh, ak léegi moom fan la jëm loolu ay supporter ñoom ñoo ñoo ko yóbbee man nag yàlla dimbali na ma ba awma supporter yu mel noonu comprendre nga samay supporter musuñu dem stade ba yàq parce que ay noble lañu dañuy dem stade suñu mbër muy ñu jiital ko ñaanal ko ak xol yu sedd buy yóbbu ko ba stade mu indil leen ndam li parce que nekkul yéen sasu leen ma lu diis man bu ma sasoon lu diis benn jour ma war a xeex ak cinq wala six personnes d' accord mais benn nit mbay guy gi. mais mbay guy gi mënuñoo tere fayeeku sëñ bi mënul ne c' est mbay guy gi